madame la ministre ñu ngi lay sant ñun waa département de Linguère bala maa wax dara dama lay indil cant surtout la commune de Mboula bi nga xam ne récemment occupé nga euh, équipé nga seen euh, poste de santé bi su loolu weesoo tamit ma lay indil ngërëm ak sant ñi nga xam ne ñoo fa mooy docteurs yi médecins yi fa nekk ci doléance yi nga xam ne indiloon nañ la ko nga koy régler chaque jour ñu ngi lay ñaan li ci des tamit ñu yeggale ko ci jàmm madame la ministre euh, projet de loi bi ñun dañ koy sante yàlla parce que depuis 1976 bu fekkee ne am nañ suñuy nawle yoo xam ne égale dignité nekk nañ ci yenn situation yi tey suñu jëlee tey suñu euh, courage aux mains pour man leen a joxaat seen dignité duñu def lu du rafetlu ko di ci féliciter le président Macky Sall ak équipe yi nga ko àndal monsieur le président de l'Assemblée nationale tey suñu xol dafa naqari ñun ñi nga xam ne ay sénégalaises lañu te xamuñu lu mel nii monsieur le président bëgg nañ nga wax président Macky Sall mu lijjanti lii nga xam ne kenn xamul lan la nañu waxante dëgg marche am na wax sa opinion am na waaye monsieur le président nawle yi suñu nawle yi ñuy dajji seen boutique yi di toj seen di toj ay banque di toj ay boutique jàmbur di jël alalu nit ñi di sàcc loolu monsieur le président enquête bi foofu lañ ko war a waxee parce que ki nga xam ne ne dafa yor arme jàkkaarloo boutique tiire ragal naa ne kuy jiite réew jàmm nga fa bëgg kuy jiite réew boo sañoon dara dara dara du laal saw askan waaye li nga xam ne fa la jógee monsieur le président nañu ubbi enquête boobu ñuy wax waaye ubbi enquête assemblée nationale ndax jar ko parce que saa yoo fi woowee les personnes concernées du ñu ñëw saa ñi fi taxaw ñëpp naan nañu ubbi enquête ñi fi dee ñi ngi jaale ñi fi dee monsieur le président di ko naqalu ndaxte kat bu fekkee ne force de l'ordre seeni arme tiire force de l'ordre yorul jaasi te toujours ñu gis nit ñaa ngi dee ay bal nit ñaa ngi ci hôpital yi ñu leen di dóor ay coup de machette le président jot na nag askan wi war a téye seen doom yi ci kër yi te bàyyi band yi ak état ñu lijjanti leen lan moo xew àtte fii yàgg nañ fee àtte nit kan moo am maqaama ba kenn du la àtte waaye lu jóg ñu bëgg ko politiser lu jóg ñu ne président Macky Sall bu boo waxee Mame Mbaye Niang mu porté la plainte ñu ne président Macky Sall nga dem ba Sweet Beauté président Macky Sall takku la yanu la yóbbuwu la fa nga ne moom la mais nañu arrêté lii nañu wax tak te mag ñi tamit ak ñi nga xam ne ñooy wax fii ci hémicycle bi ñuy wax dëgg te yàlla tax ku ne danaa def combat mortel ñu xëy ay nit dee ci kan moo woote force de l'ordre yi boo gisee policier ñu tiim di ko dóor ay mbóol ay moroomam yor aar mu moom mu yor arme bu su tiiréwul rek xam ne ne aw askanam la jàkkaarloo te xamuñu li ñuy def waaye ñi leen ci génne ak ñi leen ci woo duñ leen duñ wax ci ñoom mais lan la ñuy xaar ci nit koo xam ne fii kun fi accusé viol balaa ngoon yaa nga rëbës mais lu tax ñenn ñi di am yenn privilège yi lan la monsieur le président wala nit ñi dañoo yamut nit ñi dañoo yamut lan moo tax ku taxaw na mortel combat duñ la jëli sa kër lan moo tax ku taxaw na xale yi génn leen nan toj nan nan taal lu tax duñ leen jëli fii gis nañ fi ay député yu nekk ci à côté de 4 x taxaw ci këru ministre ñuy taal këram mais monsieur le ministre ñooñu mérité wuñu toog assemblée nationale askan wi ñu xam ne ne lii dafa rax li ko rax nag gis nga yéen a ngi wax président Macky Sall ak a gëm yàlla su gëmuloon yàlla gis nga verdict bii déggoo kenn ci ñoom demande lan mooy corruption de jeunesse parce que ñoom ci seen bopp xam nañ la lan la duñ laaj kenn fii ci assemblée national ñu expliqué ko xam nga lu tax xam nañ ne bu ko nit ñi expliqué ñu nànd ko xale yi danoon delluwaat seen kër yi dama ne man viol moom ma gënal corruption de jeunesse ndax nit mën naa tarxis violé nit ñu ne dafa tarxis waaye corruption de jeunesse dëkkee gone di ko def naka su dul noonu saa ne looloo yées viol nañ ci wax nañ ci debaat suñu doom yi ñu ngi dee ci mbedd yi suñu doom yi ñu ngi yàq seen alal yi askan wi ñu ngi toog seen kër yi mënuñoo liggéey lu tax état du ci wax mënul ne réew mii dafa am droit dama ne man tey ji complot bii ñuy doon wax bu doon dëgg la bu doon Macky Sall mooy contrôler juge yi xam nga ne dóor nañ fi 10 ans de de de prison kon juge yi dañoo gis wax li ñu gis àtte peuple bi nañu téye seen doom yi ci kër yi te bàyyi li nga xam ne ñooy ay terroristes ak malfaiteurs yi état wax ci ñoom.